soxla naataango. Ah, bokk na ci ponk yi gëna fess commission nationale recensement des votes euh, tambali délibération yi mu euh, gantal mandataire yu yeeweeg wàllu la bëggoon muy ñu ñëw daj yenn ci procès verbaux yi ngir xol ko résultat yi fii lekk euh, ci ngoon japp 16h 17h dinañ ko siiwal fële ca diwaanu wala bokk ci ca salu mu rew mi amna diwan yu bari yu ñu naan dafa am ay njuuj njaaj lu ci melni ni Podor Ranérou Matam ak canel ñi jité commission électorale départementale autonome. astronomes yi weddi ko ba mu set wecc ñuy tontu noonu ñenn ñu fare ci kudde gi yëkka kujje gi yëkkati woon euh, kàddu yooyu leen ba tey ci biir eh, xibaar yi dinañ def ab taxaw seetlu ci lool yi ñuy duppee agropol fii ci Sénégal am na ñetteel bu ñu nar a door say jile eh, ci zone ouest ban njeexital la am ca diwaan yañ ko def eh, tontu li ak Anna Rocha ci kanam la nes tuut maanaam fileeg ay bés yu néew ñu àgg ci tamxarit ginnaaw ba ñu demee xool légumes yi ak ndawal gi tey jile dañoo defab ab reportage yu ñuy jaay cere ci kanam itam tuuti lay doon ñaareelu pàcc bi xibaaru bi biti réew dinañ ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yëglekaay yi xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis euh, ban gouvernement lañ nar a taxawal ginnaaw élection législative yi ci kanam itam lay doon Mamadou Lamine Sow moo faree ci technique bi. Soxna Natta Mbaye bañ len ziaré ba nopi ñu tambali xibaari ak commission nationale recensement des votes mi danaka nek ci njeexitalu liggéeyam jamono ji ci délibération yi la toll ngir fexé ba les résultats provisoires yu élection palum député yi ñu mën ko siwal jàpp leen ni dina door ci kanam touti boori takusan manam ñent japp juróomi waxtu mandataire euh, titulaire Benno Bokk Yaakaar euh, maître euh, wala bokk ngeen jéggal ma ki nga xamanteni modi moo Fall Fall moom mi mandataire bu uh, yeewi askan wi moom nag bokk na ci lim doon sàkk kon ñu daj yenn ci ay PV yi ñu xam la ca ne waaye loolu uh, commission bi daf leen ko gàntal ñoom nag nee nañ lépp lu tukkee ci ay résultat tey jile uh, seen yoon nekku ci ndax yàkkamti waru cee am te lii dafay lëndëmal xelu nit ñi Déthié Fall ñu déglu ko foofu ci cour d'appel bu Ndakaaru ak Salimata Aw d'abord dama ni li ñu nekk ko yoon parce que 17 heures bi jàpp leen bu baax li may wax parce que publié à 17 h dara dara imposer pour nous accélérer publication parce que gis ay vendredi lañ doon publier ay minuit wala un peu avant minuit donc dara obligé ou ñuy précipiter pourquoi nous jox le délai qu'il faut coalition bi coalition Wi ñu d'autant plus que exercice gis nañ ci ay bureau de vote yi nga signé président bureau de vote bi son secrétaire signé assesseur signé wul représentant de coalition signé wul bi ma gisee loolu benn ci yooyu dama yëkkati feuille bi wan ko le président de la commission dama ko wan mu xol ko. parce que lepp luñu def day am preuve amna bureau de vote yi nga xamni lolu loolu gis na ko président de bureau de vote bi moy signé son secrétaire ak assesseur mais ben représentant de coalition signé wul. et bureau de vote yëpp dañ fay gis ay écart fleuve mais tay bu ñu ñëwee nekk ci délai mu doon un droit ñu la ubbil ñu caisse yi may ñu ubbi caisse yi xol pour mener une def observation comme ni loi bi demander pourquoi nga refusons refuser Ensuite, ensuite bëgg précipiter proclamer à 17 h alors que délai est de minuit donc ça veut dire que nous avons une activités yu ñu pareegul activités tant que pareegul nous une demande avons le droit de publier les résultats je tant que Li loi bi acceptée, defaluñu ko lu fa génn lu ñu publier na Sénégalais yi engagé ou parce que lu ñu yoon jox joxooñu ko mënoo tey ji ni génne leneen ba pare ni engagé leen engagé ou ko. mandataire muy bu benn bokk yaakaar maître Ousmane sey moom mi ngi tontu ku jege nak ndax nee sen euh, seen bobu ngir ñu dajji kon yenn ci procès verbaux yi ñu xol lool kenn mënu ko nangu ndax dafa gis ni commission bi euh, du mom moy def ab enquête maître Ousmane sey euh, ci joko bek elage Hadj xam ko électoral boo xam ko maîtriser ko am na yoo xam ne sax doo ko laaj parce que bu ñuy wote ci bureau de vote yi d' foofu la ñuy compter verbal foofu la ñuy compter bu ñu koy compter commission baa ngi toog mooy président euh, bureau de vote bi ak assesseurs yi ku ci nekk di candidat sa représentant ngi toog représentant sénat bi mu ngi toog ñu jël ay jàmbur ñooy compter ci seen kanam yëpp mat ñu taf ko ci bureau de vote su ko defee ñu jël yooyu voix yëpp def ko bu ñu ñëwee mënoo leen annuler mais mën nga ko rectifier bu fekkee ne am na erreur ci calcul ak yooyu loolu mooy seen cër loolu poste yi bu ñu koy def parti yaa ngi toog seen représentant ngi toog représentant coalition yaa ngi toog représentant sénat yaa ngi toog bu ñu defee seen liggéey ba pare ci ay magistrat ñoo koy jiite def seen rapport yónnee ko commission nationale de recensement commission recensement aussi yoon daf ko tënk daf ko ne yooyu nga xam ne dafay ñëw sous enveloppe muy procès verbaux yi nga xam ne dañ koy sele ak siir def ci seen rapport daal dina ko jébbal yow da ngay recenser waat vote

seet li nga xam mo ci bax mo ci baxul ma ci wat ci yow na la li bax na wala li baxul dama bëgg di annuler lolu parce que comme li ko commission bi waxee tay c'est pas un lieu d'investigation. Euh, bokku na ci euh, PV yi indi ciow yooyu lay yenn yu jóge fële ci bët gànnaaru réew mi euh, fofu sax nak ci foota mu melni ndamu Benno Bokk yakkar amul benn rëq-rëq bu ci am lolu ay président commission électorale départementale autonome ñom ñoko wax yu Kanel ak raneru fofu ci région bu Matam coalition. coalition au pouvoir bi daanaka naam sax euh, li mu doon am ci ay score wàññi wàññeeku na foofu waaye moom moo jiitu lu bëri wàllu topp ca aar ñëwaat ca Ali Bandel Niang ndam lu yaatu li Benno Bokk Yaakaar am ci diwaanu Fuuta ba mu waral mu jur jiixi jaaxa ci bopp ñenn ñi rawatina ñi faree bu jégi kat ci yoon la jaar ña koy firndeel di président sedda yi nga xamante ni ñu ngi rafetlu anam bi ñu organiser élection bi fi amoon dimanche Daouda Sy mooy président SEDA bu Kanel la pour législative yi di dimanche côté organisation vraiment lépp def nañ ko pour mu jaar yoon le tout ce qui matériel a été mis en place bien avant les de la SEDA ñëpp teew nañu

wax mooy dara loolu amul loolu amul et ñi ko wax nañ indi preuve surtout donc je pense la réponse foofu moom li ñu fi tontu loolu la ñi ko wax loolu amul mais nag day baax aussi ñu wax ban bureau lañu ñu buuree ñu ngi am 47 lieux de vote amul bureau bu suñu représentant newul bi ñu xaymaa nag tomb yi jóge ci commission départementale de recensement des votes yi Benno Bokk Yaakaar ñëw fu sori lool ci kanam ak 124 554 voix wàllu Sénégal topp ci ak 3896 ar Sénégal am 2629 629 Yewwi Askan mi jël 4e de ak 2505 505 yeneen bi dess yëpp yeneen listé ko seddo ci fatali nak région de Matam jotna recensé 1400 bulletins nuls ci bureau de vote yi lée mu nekkoon sa naataango Ali Bandel nya fii ci daanu Matam pour RFM tia Gossas maire bi ñu investir ci liste titulaire Benno Bokk yakar mom dafa bëgg a bu baax ci euh, kan euh, ke wala ke mo am majorité ci assemblée nationale nee na liggéey boobu daf koy bayyi commission nationale recensement des votes buñ ca noppé conseil constitutionnel euh, ca département bu Gossas Benno Bokk yakar danaka dafa jël raw gàddu kàddu gi lii ñu jot ak amagum muy euh, téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom benn yi euh, ci ginnaaw loolu la ñu fa nemmeeku itam mooy Gosaas euh, tardé na loolu ci wàllum jumtukaay reportage Aminata Goudiaby benn bokk yaakaar daanaka téeméer boo jël ci xob yi nga xam ni moom la ñu sànni foofee ci département bu Gosaas Benno Bokk Yaakaar am na ci lu tolloo ko juróom-benn fukk ak juróom-benn candidat bi nga xam ne nag moom la ñu investir ci département ba mu nekk te de liste tey itam nekk moom nag moom mooy directeur général bu Petrosen Holding SA moom nag mi ngi koy rafetlu Adama Diallo jàpp lii day wane ni liggéey bu am solo la ñu def ñoom ñi nga xam ne ñooy responsable yi nekkee foofee ca département ba. dañoo am ay acteurs politiques yu solidaire yu juboo yu réconcilié wu am candidature bu consensuelle bu nit ñi nangu mais également yàlla def ñu am une bonne organisation politique bu baax ci terrain bi yàgg ak nit ñi ak taxawu seeni soxla loolu moo tax ñun benn soxla wax dëgg yàlla nit ñi natal ñu. li jëm nag ci majorité bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale Adama Diallo yu bëri politique yi ñu ngi koy génne mais man moom sama formation li mu ma may ak sama jaar-jaar mooy ma xaar ba autorité yi nga xam ne ñoom ñoo am droit prononcé ay résultats ñu prononcé ko. département bu Gossas nag ñoom votel nañu ak doole ne moom moo fare ci nguur gi waaye ba léegi gox boo xam ne fa am ci ay infrastructure bëriwul Adama Diallo. Gossas dëgg-dëgg am na lu manqué waaye nag bokk li ci manqué yëpp def nañ ko ci ay plans locaux de développement def nañ ko ci plan départemental xaalis bi bëri na waaye dañu yaakaar ne état du Sénégal dinañu jox ay fonds de dotation ak ay fonds de concours yu am solo pour ñu mëna régler problème yoyu ci région bi nak buñ ci résultat provisoire yi département bu Fatick moom moo score bo ne Benno Bokk yaakar lañ ko jox té téeméer jël ci département bu Fatick juroom ñaar ya ak ñett Benno Bokk yaakar lañ votel Gossas mom juroom benn fukk ak juroom benn bo jël ci témir Benno Bokk yaakar lañ votel ci fuñuñ mom 56 pour cent ñoo votel Benno Bokk yaakar Aminata Goudiar bi Fatick RFM. ginnaaw élection législative ñu wax ci yenen élection ci yenen anam muy au conseil collectif collectivités territoriales yi ñu nar ko amal ñeenti fan ci weeru septembre ba tax na ñu war a taxaw tuuti euh, ci anam yi ñuy fale euh, conseil yooyu ñan ñooy voté euh, teg ci naka lañuy ñuy voté laaj yooyu yëpp Fama Jonn tontu na ci. ci ay arrêté yu bëri yu ñu siiwal démb. ministre de l'intérieur indi na ay xibaar jëm ci élection bi nga ni soxal ñi a conseil des collectivités territoriales ci article ni commission woo xamante ministère de l'intérieur commission boobu lay les jël lépp luy dossier candidature mbaa bokk notification tour coalition yi nga xamante ni bëgg nañ cee élection bi am dafa di scrutin boo xamante ni benn yoon la ñuy voté te département yépp daañu fa am ku leen di teewal waaye nag rëyaayu département bi mbaa bokk mbooloo ba fay yeewoo dina tax mu ëppale ay conseillers fu mel ni ndakaaru lu mu néew néew dina am ñett conseillers municipaux ak départementaux yi rek ñooy voté beneen condition am na mooy que ne liste yi faaw ñu sàmmonte ak parité maanaam teg benn góor teg benn jigéen niñ koy defee ci élection législative yi képp koo xamante ni doomi réew mi nga bind ci list électorale yi am lu néew ñaar fukki at mën nga doon ab candidat ñuy fàttali nag juróom-ñaar fukk conseiller président de la république moo leen di tabb juróom-ñetti fukk yi ci des conseillers départementaux ak municipaux yi ñoo leen di tabb. jërëjëf Fama Dione fukki simili ak ñaar moo bootu ci benn waxtu ci RFM. ak RFM kumpa jeex na. ki nekkoon ay jamono directeur bu euh, COUD Sitor nduur moom euh, delluwaat na ca tribunal bi tey jii la yéen a ngi koy dégg fan yi yëpp ndax euh, dañ koy tuumaal ni dafa sàkku xale bu jigéen ba doon liggéeyee ca këram kooku ab njagemaar la maanaam fukki at ak juróom képp la am moom moo waral loolu loolu sax nag tax itam ba ñu taxaw ci lenn muy yan anam yenn ci xale yu jigéen yi di liggéeyee ci kër yi am na ñu gis ni saa su nekk dañ leen di fitnaal wala di leen di teg yu méttee métti reportage ou Somli. amna ci ñu bax nak waye amna ci ñu bon amna ño xam astu ngi nekké sen siège bi fété ci école normale mu tok di xaar patron bu ko jël ngir mu liggéeyal la mu jot jaar kër yu bari liggéey fa tax muy ñaawlu yenn comportement yi nga xamanteni mom la ay moromu jankam di nekké ci kër yi ño xamanteni ñom ñoy wuyalé goor ñi nak ndax ñoy sol col yo xamanteni sa patron nga sé ba jekk jël say fer tek ci kaw bu fa ku jigen ka nekk rek goor goor la mëna do door liggéey mo la andi respecté sa liggéey wax li nga ak sa patron li nga ak mom nga def ko bul xol jëkkëra bul xol dara yow da lijjante sa ñak rek laaj ñu fay la ko Pa Diédhiou mooy yor jànq yi nga xamante ñooy war liggéey ci bërëb bi mu ñuy xamal ni fanweeri at a ngi nii mu ngi ci liggéey bi wante leen rek lay ñaawlu muy anam yi nga xamante ni yenn patron yi moom la ñuy traité bon yi patron day jël jànq bu demee mu ne buntu kër gi nii foofu ngay simi sa dal tànki nen est-ce que ko jàppa ah, loo xam ne yow doo def sa doom nga bugg a doomi jàmbur ci kaw amoon est-ce que loolu aw aw na yoon yenn saa mu toogal ko toog bu neex lekka bee suur desut bi mu ne jëlee toow bi ne kër mu dellu suufi eh, doomi jàmbur jàmbur yi. leen jàpp. Ndeye Ndiaye yore ab taabalu ndekkeem fii ci Médina. ndaw si dina xamal ni yàgg naa am ay jànq ci këram muy fàttali rek patron yi seen devoir ci jànq yi ñi ma masa yor ñëpp kenn amu ci problème patron yi daal lay ñaan ñi jiima xool daal nuñ nekkee xale yi waa defee comme seen doom te xam ne bu leen defee comme seen doom dañ mën a nekk ak ñoom daal xale daal ku ko yor yaa ngi koy jàppe ne xale la rek yow mi ko tane yaa koy dimbali daal sàqu xoqatal wala sax agressé nag ay jëf yoo xamante ne moom la jigéen yi liggéeyee ci kër yi di jànkonteel te ñu ci bari ci ñoom duñu faral di boole ñi nga xamante ne ñoo leen di teg yooyu la ñaaw ñaawteef jigéen ñi nga xamante ne ñooy daan seen doole nag ci kër yi leen nag la ñuy bëgg mooy ñàkk jëriñu ci loole nag ñuy woo nag nguur gi mu jàppale leen ngir ñu mën a am wéeruwaay wu dëgër. Euh, ñu wax ci euh, dawalkatu moto Jakarta yi nekk ca Mbàkke ñoom tey jile dañoo xëyoon ci mbedd mi ab manifestation ngir naqaru ñàkk kaaraange gi ñuy dund jamono ji yëpp am na kenn ci ñoom euh, ku ñu agressé yàggul dara sax Pape Balla mi ngi ci ligne bi ak ñun Pape Balla maa ngi lay nuyu. ndax manifestation ba mu ngay woy Pape Balla. Euh, fi mu toll nii nag manifestation ba daanaka tas na. Mhm. gannaaw ba nga xamante ne euh, police moo daal di ñëw wax ni leen ne ndax amuñu autorisation kon waruñoo mën a génn ci mbedd ak mbàkk yi ngir daal di mën a amal manifester googu donte nag am na lu leen naqari ndax bu ñu fàttali ko rek ci euh, gannaaw barki démb nag ci kenn ci ñoom la ñu daal di agressé gannaaw ba nga xamante ni dañu ko daal di dóor jaasi loxoom ba daal di dagg mu doon loo xam ne nag lu leen naqari la ba tax ñoom jàpp ni. agression yi dafa bari ci dëkk bi loolee mënatul a wéy ñu tax nag ñu wàcc ci euh, mbeddug Mbàkke yi di naqar loolu ni mel seen i moto nag la ñu taal takk seen i yu xonq daal di wër euh, ci biir gox goxaan yu bari ba bi ñuy dajee dajeek ñi nga xamante ñooy takk der yi ne leen fii du ngeen fi jaar dugg ci biir euh, dëkk bi ndax day doon loo xamante ne euh, du doon lu am karange ba tax na nag ca kër ak ndaw bi nga xamante ne moom la ñu dagg loxoom hmm. euh, a la ñu daal di mujjee def seen déclaration ku ci mel ne nag Moustapha Thiam mi nga xam ne moom mooy seen njiit Euh, mu ñaawlu bu baax a baax lu ni mel tey xam ne nag lu ni mel dootuñu ko nangu ci biir dëkk bi euh, faw rek kilifa yi daal di jóg addu ci lu mel noonu ne ak ci mel ne May Seck moom itam euh, moom ñu ngi jiital commune conseil communal au sein de la jeunesse bu Mbàkke bëgg na itam ñu gën a taxawu ndaw yi ci dëkk bi ndax ñàkkum liggéey bi. moo tax ñu nekk ci jakarta yi waaye nag war nañ leen gën a taxawu aar seen kaaraange su ko defee agression yi la amati ci biir dëkk bi soxna naa tam jërëjëf Pape Balla Gueye Pape Balla Gueye la woon moo ñu toogal foofu ca diwaanu Touba jàpp Mbàkke ci tëngee ci la ñuy dem soxna si taaloon borom këram ba mu ñàkk bakkenam ndax mbirum firange moom bu ëllëgee dinañ ko dinañ kon dina jàkkaarloo ak procureur bi ba jamono ji mi ngi garde à vue ci commissariat bu fisc enquête bi ñu koy wëyal ba léegi ñu ngi leen ko doon wax sànq tey jile ci alxames gi ca diwaanu Mbour la ñuy door liggéeyu agropole ouest bi foofu mu di ñetteelu xeet bu ni mel fii ci Sénégal ginnaaw sud ak euh, centre agropole yi ñu jagleel ko wàllum euh, coppi euh, ci lépp luy jógee ci suuf si maanaam lépp lu ñuy bay surtout loolu nag tax ba ñuy taxaw seetlu liggéey bi fan lañ ci toll ci diwaan yi ca nekk ban njeexital la am ca ña fa nekk ak ña cay liggéey fii léegi montant bu tollu ci juroom ñaari téeméeri milliards ah, ci sunu ay copar Anna Rocha defal nañu ci ab gëstu. weeru décembre atum 2021 ci la dor euh, door agropole bu njëkk ji ci beut saalumu euh, Sénégal te goxu Adéane bokk ci département bu Ziguinchor juroom ñetti wér gannaaw activité yi taxu ko tàmbale noone ndax fofé ci Ziguinchor ñu ngi wéy ba tey euh, di dolel nit ñi nga xamante ñom ñoo war piloter bobu projet projets dee ci Sédhiou ñi ñu dénk agropole sud bi dal dinañ di recruter lu tolok juróom ci ay kuréel ngir ñu mëna a cibler ana yan baykat yu yëngu ci mango mbokk ak anacarde ngir ñu mëna bokku ci boobule euh, projet ndax xam ngeen ni euh, diwanu euh, Casamance mom dong dina joxé réew mi lu ëpp 56 de ci production nationale de mangue bolé ci itam 80 de ci production anacarde bi manam ndamaras mu day lu ëpp 30 de ci production yoyulé dañ koy ñàkk ndax ñàkk ay jumtuwaay ñàkk technologie yu doy waaye itam koppar gannaaw bët saalumu réew mi nag ca centre ba ci la ñu daal di euh, lancé ñaareeli agropole bi nga xam ne ëmb na diwaanu Kaolack Fatick Diourbel ak Kaffrine euh, foofu nag mel na ni yëf yaay ngi xaw a yëngatu ndax gannaaw pause première pierre bi ñu amal ñaar fukki fan ñett ci weeru mai gi weesu ca Fatick agropole bi daañu ko tabax ci lu tolloog fanweer ci ay hectares ci yoonu Foundiougne ci diiru fukki weer ak juróom mbébét bi nag rëy na li ñu bëgg a def mooy transformer lu ëpp ñetti million ci tonnes itam 260 tonnes de céréales Mbaye itam lu 190 000 tonnes euh, ci xorom filek lek juróomi at yi ñu dëgmal Kaolack ay infrastructure yoo des na tabax unité de transformation bi foofee waaye nag mën nañ wax activité yi door nañ ndax ci foire biñ fa amal ca Kaolack am yenn ci euh, exposé yu transformé ci unité de transformation

ñu ci mbirum militaire yooyu ba léegi njiital alternative citoyenne ACI di Pulchéri Bale moom euh, teg nañ ko loxo ci aéroport Abidjan Dembou gannaaw bu mu jógee ci Mali moom Pulchéri Bale bokk ci société civile dafa demoon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet euh, gi ñu weesu ca Bamako ngir daje kilifa euh, yi Mali xool itam naka la mbirum soldat yooyee demee foofu ca Mali soldaaru Côte d'Ivoire ya fa teg loxo. ca République démocratique du Congo MONUSCO muy mission bu Nations Unies. yëkkati na ay kàddu ci dogal bi euh, foofu jël euh, gouvernement bi ngir dàq seenu porte parole. ñoom nee nañ daal ñu ngi koy euh, ñaawlu rafetlu wuñ ko donte sax woo nañ kookee mu jóge ca réew ma demu nag la ministre bu RDC yor lépp lu jëm ci wàllum ci réew eggee waa ko ab bataaxal ne Mathias Gilman na jóge ci République démocratique du Congo ci saa Awa Mbaye Eh, kii Christophe Lutundula di ministre bi affaires étrangères foofee ci république démocratique eh, du Congo mom démb waxna wa Nations Unies ne nañu jël sen ndaw li nga xamantene mo fa toogal wa MINUSCO té lolé bu mu yàgg dara ndax nañu japp né dogal bobu lu yakamti la dañu ko war a eh, ci saasi ci ab communiqué bo xamantene nak MINUSCO di ndawal Nations Unies ya n'ek fofu ci RD Congo fësal nañu ci ab communiqué ci africa point news point com MONUSCO nee na ñoom ñi ngi li nga xamante ne am na ci diggante bi mooy seen porte parole bi te gouvernement bu Congo jël dogal bi waaye nee nañu ñoom daa ñu ko jëfee te kii leen fa toogal di Mathias Gilman dina jël ay bagaasam bu soobee yàlla génn foofu ci réew moom Gilman moomu nag MONUSCO teg ci ne loolee du leen tere yeggale seen liggéey bi nga xamante ne door nañ ko foofee ci R2 Congo muy ci askan wi wala ci njiit yi Gilman nag ñu fàttali ne li waral kon dogal bi gouvernement bu Congo wax ne na génn ci réewam woon ay kaddu ci RFI ne ñom munisco amuñu ay moyen yu doy ci walum militaire ngir jamarlok ñi ñu tuddé M23 ci réew République démocratique du Congo la ñuy des ba légui ak cong yañ fa euh ONU nak motay xeet yi ci baaraamu tuuma l'armée bu euh, Rwanda deugal né dañu dugg ci territoire bu RD Congo jàppale fa ay euh, groupe armé 2021 novembre 2021 euh, jëm ba juin 2022 lolé nak ay expert yu mbootaayu xeet yi ñoo def rapport bi ñu mel rappel boobee sax eggee nañ ko

mel ba jamono ji ñu ngi leen di wër euh, ajuma gi ñu weesu la ay bandi dugg ci ab dëkk euh, fat wala bok lak sax fanweeri nit ak euh, ñaar bok ci ñoom fukki gone ak ak juróom doy na waar george jeex na jërëjëf Georges Déthié Diop ci xibaaru biti réew yi bu leen fàtte ci kanam incha allah gis-gis dinañ waxtaan ci euh, gouvernement ban gouvernement lañ war a teg ginnaaw élection palum député yi fileek lu néew fukki simili lay doon incha allah. Sport. xibaaru tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, soxna Natta Mbaye. ñu wax ci wàllum afro basket euh, ñi amagul euh, fukki at ak juróom-ñett ci góor ñi Sénégal weekend bii lay amal ndajeem bu njëkk. samedi diggam ak Algérie ci yoon googule sax ñoom ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñi nga doon tàggatu tey ji suba gi foofu la ca Madagascar foofu la ñuy daal di amal guddi tournoi yëf yi nag daal na door niki tey jii dañ siy ànd ak soxna Soda Thiam. mu nekk ci poule A bi bokk kook dëkk bay dalal ak ak Bénin Sénégal nag am na chance jàll ci geneen tour gi bu ñu xoolee ci joueur yu ndaw yi ñu sélectionné Abdou Seye di ab taskatu xibaar bu xam-xamam màcc ci wàllum basket moo ni waxee. parce que groupe bu homogène la am ay joueurs yu polyvalent yu bëri yoo xam ne mun nañ dépanner si post yu bëri léegi mun nañ ne Sénégal mun na conserver ay chance am parce que ñaari yoon boo ko nekkee finaliste nga nar delluwaat sa objectif day nekk nga nekkaat finaliste wala nga jël coupe bi na mun nekk ndaxte compétition bi euh, premier bi dina abordable ba deuxième tour bi comme li ñuy wax les les choses sérieuses commencent foofu la ñuy commencé di jongante ak euh, yenn poids lourds yi yenn prétendants yi comme Mali comme Égypte comme Côte d'Ivoire xam ñoom ñoo xam ne am nañ équipe yu baax yoo xam ne ñoom tamit dañ taxaw pour euh, jël raw gàddu bi. Mali mi nga xamante ni moom moo jël ñaari édition yu weesu moom nag moom moo ko xañit gaynde yu ndaw yi lii nag di ab occasion ngir daal di wëlbati kart gi bu ñu sukkandikoo ci journaliste bi nekk ci quotidien le quotidien di Wuri Diallo waaye moom nag ci gis-gisam moo de il faut que ñu am dugg si gu rafet ci gi la jongante. balaa ñoo wax mbirum final euh, il faut que même ñu ñu waajal bu baax match yi njëkk yi mooy maanaam match de poule donc dañuy jouer contre euh, pays organisateur muy Madagascar dañuy jouer contre Algérie jouer contre Bénin donc euh, il faut que ñu am taxawaay bi war aussi déjà ci match de poule pour wane ni que euh, objectif bi mooy dem ba ba final et puis gagner ko parce que ñaari édition yi mujj yëpp Mali moo ñu ko xañ donc normalement su fekkee dañoo continuer ci même lancée bi war nañoo mën sorti ci compétition bi. parfait adjoint. yi nag daañu tàmbali gi niki samedi ji gayndey ndaw yi Algérie moo nar sen adversaire bu njëkk. Soda Cham, Seigne Cheikh mu melni ni président bu Napoli kaddu yi mu yëkëti woon ci joueur africain yi tambali na ko wex. gannaaw ba ka Koulibaly tonto Niki Demb euh, démb ba tey bëri na ñi nga xamanteni ay euh, manam ay ay nit yu siiw lañu di ci yëngu ñom itam yëkkatuñu seen kaddu ngir daldi naxarlu naqarlu lay yu président bu Napoli di Aurelio Di Laurentiis. mom nak la mo xon modi e eh, bepp jour bi nga xamanteni bëgg ngaa fubal ci clubam am du jour africain rawatina eh, bo fa ñëwee bëgg football itam eh, dana la xañ li nga xam modi coupe d'afrique des nations lool nak moy wéy di metti batay gaay tay yi ji sax suñu natango gi nga xamanteni modi mbay di Mbaye xam xam-xamam lool ci mbir mi tamit amna ay cadeau yu ci jotté yëkëti ñu déglu ko ci micro rugi saxo waaw xam nga euh, bo xolé orielo de laurentes mom euh, ak ki la woon quoi producteur cinéma xam nga producteur cinéma yalla may ko mu dugg ci club yore Naples yore ko presque depuis xam ma ñaata at signé woon fa ay joueurs yoo xam ni joueurs africains yoo xam am daraja yu yokk en tout cas valeur ajoutée ci équipe am bi muy naa muy que ce soit le Nigéria Osimhen que ce soit Kalidou Koulibaly bi nga xam ni dem na te Osimhen fi mu ne nii euh, il est en pourparlers très avancé avec le Bayern de Munich ci boobu nag moom lu ko gën a métti mooy départ yooyu parce que ñooñu ay star lañu star mondial buñ demee nag ba yenn crédit bugg leen pour pour pour des enjeux financiers dañuy dem ñoom tam dañuy kii gisoo boo xoolee Kalou def na fa huit ans dal la fa gagné benn coupe am il a envie aujourd'hui de gagner d'autres trophées dans le grand club ba pare aussi sport dafa am ay réglementation tey dafa am ay normes dafa am lu ko tënk lu ko tënk ci lépp ci kayit la nekk moo tax ba kenn mënul tëye tey benn jour africain boo respecté en tout cas sélection nationale africaine bu ñu respecté la date limite des convocations kenn amul maxaama téye seen ay journée bi ñu yow donc moom loolu bu nee du recruter nag euh, jour africain loolu ça n'engage que lui bu ko neexee mais tey daf ma wóor ni tey donc yooyu waxu daanaka sarit la yoo xam ni amul euh, euh, bopp amul gen peut-être que daf ko wax nii donc moi je pense que loolu ay waxu daanaka sarit la ay ku bari nit ku am teggin la ku yaru la ku yar la ba pare nee moom xëy na yooyu amul euh, di mais essentiellement il bés buñ ko convoqué équipe nationale amul benn club au monde bu ko du répondre à l'appel de la nation à l'appel de la population à l'appel de la patrie parce que nee coupe d'Afrique des nations bi mu gagné li mu gis mosu ko gis ci àdduna. voilà mi ngi noonu euh, kaddu Mbaye Jacques Diop di suñu natango doon wax kon bokk ci mbirum euh, kii di euh, Aurélien Aurélien di Laurentis moom mi nga xamante ni di président bu Napoli gannaaw kaddu yi ñagas nga ni démb yëkkati na ko nii nga xamante bëgg ngaa football équipe ba boobu di Napoli rawatina joueur africain yi maanaam daal di nga signé ni do dem Coupe d'Afrique des Nations te ñun nak loolu lañ am naat. Mm. n'est-ce pas. <laughs> doy na waa Cheikh. jërëjëf jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. RFM rajo askan bis bi ñu jagleel ko tamxarit xam ngeen ne altine gii ñu dëgmal la keroog defoon lañ leen reportage eh, ci légumes yi ak ndawal yi taw yi tey jii nag dañoo wax ci cere ji ñi koy defar soxna yi ñoom jamono ji li ñuy defar yokk na bu baax waaye bokk na ci li ñuy naqarlu njëgu dugub bi cher loolu tax na ba koppar ga ñu daan am dafa wàññeeku sax reportage Aminata Ba Ami Seck ñu daje ak moom ci marché Tilène mu yóbbu ñu ci soxna si nga xamante ni moom mooy jaay cere. fofu sax lay jëndi at bu jot yaasin di yëngatu ci bile commerce bi mu kay gone ba léegi ay pan yu am ciéré daal di fees dell ci tabulam bi way nak ay fan rek mo desandi ci tam xarit bi te ba tay ji yaasin gisagul ay client yu bëri ñu ngi ñëw tuti tuti rek ñu mom daal commande du bari xana jour bi rek wala buñ nee suba la ci la nit ñi di ñëw di jënd mëno xam exactement temps de commande benen soxna mom itam muy jay ciéré rawati na ci jamono tam tamxarit bi waaye nag ren ji muy ñaawlu ni njëgu sàkku dugub bi daal di yokkoo. doxagul ko nu mu waree daal ndax bagages yee seer dugub seer na mboq seer na saaku bi am na ñu lay jaayee vingt mille am na ñu lay jaayee vingt mille cent mboq beeg dugub bi boo ko boolee dafa seer sans dépend rek ah ku ne àll ngay defar ah cinquante kilos la ñuy teg mooñ ko wala ñaari cinquante muy cinq cent kilos ñu mooñ ko tey waaw teg ko ba mu forox ñu mooñ tey Aïcha ñëw dox si ay coursam moom nag mu fas jënd cere ci tam xarit bi ñàkk jot rek moo tax dama amul benn temps loolu moo tax man kese la sama kër xale yi dañuy liggéey amal soxna yi nga xamante ne ñoom ñuy yëngatu cere di ñaawlu seeraayu dund gi ñoom bi am ci njëgu dugub di tax nag ba liñ doon di wàññeeku seen parfum yu di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ak deodorant Malaysia Yumo ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li yëglekaay yi xëy alxames gi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf keroog ba ngóor jaayee mbaam ma ba noppi ngoy ca noppi yoon du dem coow la ca toppoon coow lu ne toll topp na ci élection législative yi fi woon keroog bil l'observateur journal bi mi ngi ñuy xamal ne waaye yeewi askan wi nee nañu waa Benno Bokk Yaakaar gañe gi ñu ne dañu ko gañe diwaanu Podor gañe ko Matam gañe ko ca Kanel ak ca du dëgg ndax dañoo sàcc élection yi forot ci procès verbal yi falsifié ko dugal ci ay njuuj ne résultat élection yi financement des woote war na siwel na ajandeegum yëf yi reporter publication bi bala xew ci lehchi leer ci nit ñi Khalifa Ababacar Sall bokku ci waye Yewwi Askan yi di wax ci mu njëkk Vox Populi lu mu jar rek dinañu ko jaral waye addu kalpe mom du am gaay duñu tok di seetaan ñuy sacc élection yi di nangu suñu victoire ci li tegul fenn dañu foroot ci bëgg sacc élection yi waye lolé du jall ñu jall ci Sud Quotidien fekkaat fa ciow la ba légui journal bi bind ci xët mu njëkk ne tay ji ci ngone ci la ñuy résultat provisoire yu élection député yi woon keroog dimanche waye muy waye Yewwi Askan yi di wa Benno bokku Yaakaar ci ak jàppalante ci la ñu jamono ji ñaari coalition yi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi daas fanaanal Ousmane Sonko compagnie yéenekaay bi nee nañu li ñu jàpp moo di élection yu jaarul ci yoon ci diwaanu Fuuta bourrage des journaux dafa am Abdoulaye Seydou bu Benno Bokk Yaakaar di leen tontu ci xët mu njëkk Sud Quotidien di leen wax ne fi ngeen ñuy fekk lu ngeen bëgg rek danañ ci dem ak yéen yéenekaay beneen bu ñu gis ay kàddoom moom Abdoulaye Seydou moo di dañuy sonal seen bopp rek waaye du jàll tey du jàll suba Sow Seydou Abdoulaye tëj wax ji ci Vox populé nee na dëgg la politique compétition la xëccoo la waaye dafa war a tege ci dëgg Benno Bokk Yaakaar mooy majoritaire ci assemblée nationale te loole bu garab yi doon fàq suuf si jalaa ñoo sax du dañ ba fan la àndub yeewi askan wi ak wàllu Sénégal mën a yegg mbir la mu journal L'Observateur xëy di lijjanti ba di ñu xamal ne intercoalition gi ak lëngaloo gu ñu ngir wotee député yi seenub ànd jur luy ci laaj bi di seen ànd boobee dana mën a wéy ci assemblée nationale Ibou Sané di professeur ci wàllu sociologie ci Université Gaston Berger bu Ndar mel ni ku ci tontu ci Walf Quotidien professeur Ibou Sané nee na bu ko njortam naxul ànd wallu ak yeewi du yàgg ne waa parti démocratique Sénégal ci boppam ñooy rocceeku léegi dem fekki waa APR borom APR di Macky président de la République le mandat nee nañu ci tànki tas gouvernement bi ca la nekk ne démb ca ndajem conseil des bu ñu sukkandikoo ci xibaar yoo xam ne ñoom le mandat amee nañu ko nee nañu annoncé ngeen waajal dossier de passation yi ñu xaarandi nag li war a tukkee ci résultat élection législative yi ndajem conseil des bi woon démb journal bi nee nañu conseil des du ko gën a gàtt ne bu matee une di benn waxtu ca la yam ñu yam ci xët mu njëkk soleil national gisaat fa yi nga xam ne président national sant na koy ministre am démb yéen bi di ñu leeralal ne directive yi mu nga jëmoon ci wàllu développement artisanal national di lijjanti cohabitation gi ñuy ruumandaat ci assemblée nationale ci diggante pouvoir bi opposition bi bu ñu ci yeggee ana nu muy demee dem na ci it moom journal témoigné ba dañuy wax ne assemblée nationale bii ñëw dana bari ay xar kanam yu yees ak ay député yu doy waar journal bi di ñu ci tuddal Guy Marius Sagna Pape Djibril Fall Barthélémy Dias ak Ahmed Aïdara anki dina kay nañu du ñooñoy rek ne bu weesoo Ahmed Aïdara Barthélémy Dias ak Guy Marius Sagna nañu lu mu seetlu ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak Macky Sall gis diggante Abdoulaye Wade ak waa CAP 21 moo dal kii di Macky Sall diggam ak Benno Bokk Yaakaar li yëf yu juraloon Abdoulaye Wade la juralaat Macky Sall ñu sànni suñuy bët ci l'observateur xooli enquête bu yéeme te doy waar bi nga xam ne def na ko jëme ko ci ñu mu tuddee les courtiers du sexe di ay nit yu nekk ci réew mi seen liggéey moo di di wutal borom daraja yi ci réew mi ay jigéen yu ñuy bëgg ak di leen xemmem ci ñooñee di liggéey loolee am na ko ci xamal waa l'observateur ne am na benn politicien bu nekk ci réew mi am xaalis lool daf ma santoon ma lijjantil ko benn actrice bu siiw bu nekk ci réew mi mu ne ba ma ko ko lijjantilee ba teg ko ci loxoom ab pàkk di terrain li yëkkati may ma seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bii di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu egsi ci gis-gis ñuy waxtaanee wàllum politique ak ab laaj bu ñu samp ban gouvernement lañ war a taxawal ginnaaw résultat yi bu génnee ci élection palum député yi ñu nar ànd ci waxtaan bi ak Adama Sadio nekk docteur en sciences politiques maa ngi lay nuyu di la ziar Adama Sadio.

bu dee dañoo yem ci yoon ndax amul benn yoon boo xamante ni constitution wax na ni même bu fekkee bu fekkoonte ni opposition bi sax moo ëpp ay député ci assemblée nationale amul fenn fu opposition fu constitution bi ne. Mhm. cohabitation bi en fait obligation la et que le chef de l'État dafa nar a nommer forcément un premier ministre boo xamante ni ci opposition bi lay mais du point de vue politique. du point de vue électoral ak ak du point de vue social et tout on peut dire que c'est une obligation politique que chef de l'État tey tolloon foo xamante ni jaaduna mu tijjeeku jaaduna mu fexe ba eh, amal gouvernement goo xamante ni hmm. day nekk une thérapie sociale et politique xam nga sax gouvernement gi ñuy wax ni hmm. man dama bokk ci ñu jàpp ni waroon nañ ko mën a am depuis mars 2021 mille vingt et ba ñu génn ci li fi amoon ndax Sénégal dañoo aadawoo saa ñu jugee ci fitna ci yëngu-yëngu ci wàllum politique yu am doole buñ ci jugee njiitum réew bi yi fi mës a nekk dañuy jël ay mesures yu am doole ci wàllum gouvernement bi ba ca jiitu mooy 1968 mai 68 bam fi amé, ak li fi xewoon yëpp bañ juggé le président Senghor dafa jël mesure yu am doole bokk na ci ministre yi nga xamante ni ñoo laale woon ci mai 68 ñoom ñëpp bañ ca génné daf leen a teggi yamul foofu de mu daal di le poste de premier ministre en 1970 ëlbatiku 1974 mu nangu le parti démocratique sénégalais. allez ñu ñëw ci Abdou Diouf Abdou en 1991 bañu jugé ci événement yi amone 1988 ak yi amone aussi au niveau de l'université Cheikh Anta Diop ba ñu ca jugé Abdou Diouf dafa tek un gouvernement d'union nationale en 1991 ñu ëlbatiku 1993 tamit ba mu amee li xew Fatou maître Babacar Sèye yépp coow li ba mu bëree ba ñu ca Abdou Diouf dafa tek un gouvernement élargi de majorité présidentielle kon jaadu woon na le président Macky Sall bu ñu ci événement mars 2021 ak li fi xewoon yëpp mu daal am une haute lecture politique. Mhm. mu daal di am un gouvernement boo xamante ni day boole Sénégalais yi mu am un déclic mais malheureusement amul. Mhm. ci élection locale yi bañ ca jàllee amul. Mhm. mais njort naa ni bii dina am te dina teg gouvernement goo xamante ni dina doon un gouvernement politique qui va répondre aux aspirations politiques et surtout. sociale du mm, pays. Mm. Euh, euh, René Massiga Diouf Adama wax na ko sànq nee na euh, jóge nañ ci ay élections muy locales yi ci janvier bi la weesu mars 2021 am na lu fi xewoon boobu ba léegi gisuñu benn coppite ndax à ce la ak yëf yi ni muy demee ndax jàpp nga ni xaj na lii buñ ci jógee coppite dina am te bu amee it ban ban xeet la war a ne. waaw maa ngi di nuyu di nuyu auditeur man dama jàpp ne. Mhm. gestion pouvoir li di gestion pouvoir les ay théoriciens yu en sciences politiques théorisé ko avant ak même des philosophes avant dafa a ak un euh, politique c'est-à-dire que mënoo di gérer ngour bo amul yenn lecture politique c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles depuis 2012 mhm. ngeen di dégg souvent des militants qui ont dit dañu jege ngour yi président dafa lecture politique profonde parfois aussi nga dégg quand opposition bi ñu ne président mënul lire événement mais pourquoi parce que souvent du une réponse pertinente par rapport à la situation bi moi je crois que situation politique depuis quelque temps depuis près de deux ans dafa laaj ay changements profond yoo xam ne ba léegi ko ay coppite la laajte woon coppite yooyu dafa am lecture boo xam ne ko ci événement yi pour mën pour mën ko indi dafa commencé rek 2021 euh, 8 euh, mars 2021 mais après dafa continuer bu ngeen gisee euh, depuis 8 mars 2021 événement yi fi xewoon lecture bi dañ ko biaisé pourquoi parce que quand ñëlé dañu japp né ñom ñoo am victoire ñëlé né lolu dañ ko orchestré motax tax mënuñu indi coppite maintenant par rapport ak situation bu bess bi question bi ñu war poser moy mhm. lan la résultat yi wax man loolu lay wax lan la résultat yi di ñëw di wax buñ ko buñu paré ci lolu xam nañ né ñun ñëpp xam nañ né tay nguur gi ñom né nañ am nañ majorité mais benen camp bi bu ñu jëlee camp opposition bi yëpp yëpp yëpp réuni ñun ñëpp xam nañ ne am na basculement bu am. Mhm. basculement bu am donc basculement boobu favorable lul camp wu nguur bi. et donc loolu mooy lecture bi gën a lucide quel que soit li ñu wax bu fekkee ne benn bokk yaakaar moom moo am majorité bu fekkee ne ñu la ñoom ñoo am majorité en tout cas li xew vraiment ça ne profite pas au camp du pouvoir loolu moom mooy lecture bi nga xam ne dañ ko war a am ak recul. maintenant loolu bu weesee ba pare ba ñu jàpp ko noonu te jàppuñu ci opinion partisane normalement dafa war a ànd ak ay réformes réformes yi ñu commencé par ci institution parce que dans un premier temps les Sénégalais yi la gouvernance hmm. je parle pas seulement de gouvernance économique ni de gouvernance financière damay wax gouvernance politique d'abord parce que temps d'essoufflement dafa am ci parti politique yi te dafa am ci coalition depuis dix ans on est avec à la tête de du du régime sénégalais avec la même coalition Benno Bokk Yaakaar boo xam y dafa am ay ay entité ci biir évaluer wuñu entité bu nekk lu muy peser à l'instant T et donc lolo usure boobu momo am on a avec on est avec des gens yo xamné ne luñuy lu peser derrière lolo bu passé man foog naa war nañ indi coppite yu war coppite yoy moy essayer ajuster décision yi ñu jël essayer ajuster par rapport ak demande bi am actuellement demande sociale la ensuite demande politique la et ensuite demande institutionnelle moom la ñuy exiger té loolu dafa wara a ak ay changements yo mhm. impliquer ay aussi ay changements d'hommes. Hmm. Hmm. Euh, Adama Sadio euh, gouvernement d'union nationale bi nga xamné ñu le ñu ngi koy euh, roumandat boobu ba ce ndax loolu mom moy safara bi ngir éviter une crise politique fi Sénégal ce sera guléet quand même Sénégal du coup, expérimenter. Euh, gouvernement d'union nationale loolu Sénégal jot na koo am ñaari yoon. Mhm. bu ñu fàttaliku en quatre-vingt-onze mooy gouvernement d'union nationale bi nga xamante ne Abdou Diouf defoon na ko mooy li ma wax sànq ni mhm. dañoo tàmmoon bu ñu génnee ci événement yu mag ay fitna président yi fi mosoon nekk yëpp dañuy jël ay décisions yu mel noonu. Mhm. amaat nañ ko tamit beneen yoon tamit mooy bu ñu génnee ci ci ci.

mais du suis dong parce que mom ci coalition lañ ko danaka du mom amna ñeneen ñum ko ndax je euh, dinañ nangu ci coalition bobu président de la république de ba ji na da fay tann kenn ci euh, li waral ciow li lepp muy mbirum troisième mandat bi. waaw euh, mën na parce que de toute façon gouvernement a jëm mom li koy mhm. ambition bi le président Macky Sall am ci 2024. bu fekkente ni dafa am ambition wu doonaat candidat bu tegee gouvernement bi nañ ko xam bu dee tamit dafa am ambition wu maanaam bañ a doon candidat bu tegee gouver gouvernement bi ba war nañ cee am ay njot xam nga lii ne ba ne mooy poste premier ministre bi nga xamante ni sax gouvernement bi eh, Macky Sall le président Macky Sall daf ko daf ko fee jële woon en deux mille dix neuf mhm. tey bu ñu jàngatee danañu nangu ni kat njuumte amoon na ca ndax gis nga premier ministre boobu bu ñàkk koo am moo tax eh, opposants yi ku ci mel ni tey Sonko ci muy jàkkaar lool mën a xeex ak moom kooku Macky Sall dong la tudd moo tax boo gisee dans le discours de Sonko lay ñëw di ñëw saa su ne mooy Macky Sall Macky Sall alors que bu doon amoon na benn premier ministre boo xamante ni comme Aminata Touré ni mu ko nekkee woon di ak opposition ba comme Boun Abdallah Dionne na mu ko doonoon di mm-hmm. jàkkaarloo ak opposition ba loolu tey da koo manqué mais ngal la tey bu dee da koy indiwaat baax na mais ka may indiwaat nag day doon koo xamante ni day am li ñuy wooye consensus au sein de Benno Bokk Yaakaar mu doon it koo xamante ni il ne fera pas de l'homme au chef de l'État si bu fekkente ni chef de l'État bi dafa am lu mu nammaat 2024 ndax Afrique dañoo jàpp ni képp ku ñu fal premier ministre ren bu ñu la falee tey bu ëllëgee la ngay xalaat ren mooy chef de l'État moom moom nga bëgg a doon hmm. kon même dindi gi ñu dindi woon poste premier ministre ba c'était juste une en fait une une réponse politique à une équation politique autrement dit Macky Sall bëggul won premier ministre bo xamanteni ni mën na koo xatal ci yoon deux mille vingt jëm mais ñott naa ni dana jafé lool tay mhm. ci contexte politique bañu tollu toll nga gis un opposant buy jouer des rôles phares dans l'opposition accepté tay mhm. nek le premier ministre. mais loolu tekkiwul ni. Mhm. amna yenen fan amna yenen parti yenen kuréel yenen coalition ci opposition bo xamanteni mën nañ ko nangu ndax comme niñ ko waxee souvent Sénégal amul une opposition mais dafa am des des oppositions mm-hmm ah si euh, Massiga Diouf ndax bu ñu demee ba euh, loolu noonu scénario boobu mënoon dem ba am ñu nar a tànn premier ministre ci opposition bi parce que opposition yi sax la ñuy wax ndax bu ñu fàtte ni euh, même bu ñu waxee intercoalition yeewi wàllu ba ñu dem ci élection yi ku nekk dafa am sa liste ndax tamit du jéem a indi wala néewal doole wala indi ay jafe-jafe ci classe politique bi rawatina ci opposition bi bu scénario bu mel noonu demee ba am bu ñu waxee opposition yi rek. c'est hmm. que dañuy reconnaître que ci biir opposition yi. Hmm. Euh, méngalewuñ leen yemalewuñ leen. doole même euh, hmm. position bi yemalewuñ leen doole. ci opposition yi dafa am ñoo xam ne bu ñu defee lecture ci ñoom seen sortie depuis quelques années mën nañu wax tey ne même tey bu ñu leen proposé woon poste premier ministre boobu duñ ko nangu. mën nañu citer mais ça ne vaut pas la peine ñoo xam ne ko nangu parce que seen intérêt nekkatul ci dem. ce qu'on appelle les opposants radicaux ñi sénégalais jàpp ne ñooy opposants radicaux yi tout à fait on peut mm. les appeler comme ça on peut les appeler mën nañ les opposants ou radicaux Nous, nous, nañ ne su seen nekkatul nekkatul fii parce que li gënoon a métti ci situation politique nous traversé wuñu ko mm. traversé nañ ko te pourtant demuñu ci kaw muy local di législative waaw local législative ak yeneen ak yeneen ak yenen ak yeneen donc ñooñu amuñ ci intermédiaire nous nous, ci opposants yi am ci ñoo xam peut-être nous xam nañ ne perspective ci at yu néew amuñu perspective politique yu leen mën may yenn envergure yi mhm. ñooñu rejoindre le camp du pouvoir dans le cadre d'une d'une d'un gouvernement d'union ñooñu mën na nekk seen objectif parce que loolu mën na leen may gain politique boo xam ne suba dinañ ko mën a en 2024 quelle que soit la position du pouvoir pour mën imposer ou pour mën positionner wu encore davantage sur l'échiquier politiques donc loolu moom mooy au sein des loolu moo nekk au sein des euh, des oppositions et puis il faut se dire que si opposition bi amul quelque chose bo xamné c'est acquis définitivement parce que pour l'instant comme ni ko waxé intercoalition la Walu ak qui ñoom mhm. ñoo nekk ci kanam mais ci biir inter ci biir ci biir intercoalition bobu dégg nañ ay discours puis 7 ans 8 ans yo xamné ne mën nañu xajamal déjà li nga xamné ñu koy à savoir euh, opposition bi mën a doon parce que dégg ngeen depuis quelques années ñu ngi naan regroupement ay camp libéral la famille libérale oui voilà famille libérale ak ñooñu te xam pratiquement bu ñuy wax euh, famille libérale ñoom ñooy ossature famille libérale boobu. parce que yeneen parti yi nga xam ne juddu nañ foofu yëpp pratiquement fa la ñu fekkee fa la ñu fekk baax donc loolu déjà war na tey xel. maintenant par rapport à seen objectif commun par rapport à li nga xam ne moom la ñaari parti traversé depuis depuis quelques années parce que bu ñu fàttaliku aussi doonu Karim wat te Karim wat egsi na à un moment boo xam peut-être que compromis du le baax ci compromettrez, vous bu rejoindre le camp du pouvoir peut-être que l'ambition yi en 2024 mën na ñàkk ambition yi et puis je ne suis même pas sûr que ñenn ci am camp duñ ko parce qu'il est parvenu quand même quoi qu'on dise élection yi dañu parvenir ressusciter le camp au PDS mhm. donc c'est ce que loolu moom réalité malgré départ yi ñu am tout. Mhm. voilà ak yi ñu am ak affaire parce que c'est inédit pour PDS bon parti bon il y a juste dix ans quand même euh, pratiquement il Mm, c'est une sorte de renaissance. pour le parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. absolument de renaissance C'est loolu situation politique bi tey donc mën nañu aussi dañu am ambition en 2024 Nous nous davantage positionné et que positionnement bi ñuy am war na en 2024. Nous, avons ñooñu tamit xam camp du pouvoir malgré li ñuy wax ci ci regroupement wu euh, famille libérale loolu du du du mm-hmm. donc ce qui reste au président nous ñu une hypothèse yooyu président Et je crois que nous réussir pas. Moi, mooy nous def gouvernement bon xam technocratique n'est en place hmm. ay membres société civile yi dinañ en place hmm. plus maintenant les compétents de son camp parce que dans son camp hmm.

quand au pouvoir nous nañ génn ci élection bu 2024 yi mais mhm. avec euh, peut-être benn mhm. situation boo xam ne mhm. euh, dina gën honorable que li ñuy actuellement merci beaucoup jërëjëf René Massiga Diouf euh, docteur en sciences politiques ñu lay sant di la gërëm bu baax Adama Sadio yow itam ñu ngi lay sant di la gërëm docteur en sciences politiques politique également merci beaucoup bonne journée jërëjëf mu nekkoon gis-gis fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi juróom fukki simili moo bootu ci benn waxtu di sant di gërëm bu baax a baax Mouhamed Mamadou Lamine Sow ci technique bi Yacine Pouy ci digital El Hadj Ndiogou Diène ak Barthélemy euh, Ngom euh, ci euh, réalisation bi xibaar yi dinañ ko tënk bu 15h jotee incha allah léegi rek ci kanam ñu bàyyi leen.